jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbedd ni ges baa ngi nuyoo jili der ak boy grand Messi takke mëne fu ne maa leen di béggewaat bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission préférée Galsen sama game sur Equivox TV euh, tey nag euh, benn ndaanaan lan lan seet si il se nomme avocat from Thiès avocat from Thiès lan seet si pour yaatal ak moom euh, des fois dañ koy gëj a dégg des fois ñu dégg ko des ñu gëj ko dégg jot na génne projet lu tax gisaatu deuxième projet bi yooyu yëpp dinañ si ñëw léegi léegi mais balaa ñuy dem dama koy bàyyi mu nuyoo après ñu dugg ci biir waxtaan bi Djily eh, Darr la euh, jot na génne projet mais boobu ba léegi ñi ngi xaar deuxième projet bi ñu bàyyi ko mu nuyoo après ñu dugg ci biir waxtaan bi xëy na. yow sëb salaamaaleykum guys maa ngi di leen ziara avocat la from Thiès from Sénégal from Africa yee tey man la gars yi dalal. maa leen di waaw leen di bëggee daal ab yaa manga fogalaange cee <laughs> jaajëf tàmm euh, na di dégg kàddu googu ci yow mooy ab yaa manga fogalaange loolu laal la abo loolu làkk ban làkk la kabo gémbo la ban dëkk moo koy làkk sunu dëkk hmm, loolu est-ce du sa làkk bopp <laughs> waaw lépp daal dinañ ko xam ci incha allah ci li ñuy liggéey nii incha allah di ko waajal. Mm-hmm. waaw bëgg cee bëgg cee bëgg cee expliquer yu bëri yu bëri bëri bëri bëri incha allah rabi xam naa nañ ko xaaraale ba foofu incha allah. Mm-hmm. yéen bu ne avocat force automatiquement xelu gars yi day dem ci 2014 mm-hmm. bi nga xamee ni 2013 ngaa ko jël na fu la ëpp 2014 nga ñëw jël ko. jot nga ci génne benn projet si diggante boobu mais avant avant projet bi dañuy ñëw si flow 2014 bi nga jëloon période boobu avocat da jékki-jékki saa gis benn gaayan bu sari bu jaay parek ñëw jël plo bi ak ñi ngi ko sekkaloon ñëwal ñu si époque boobu. yee sant yàlla ah, parce que man moom lenn laa mës def ci sama moyen moom laa mës def ci sama moo mës a nekk sama philosophie muy liggéey. Hmm, période boobu dañoo liggéey ñu dikk ñu def flow up man dama doon waajal sax sama projet quoi léegi flow bi taxaw après man ak sama gars yi ñu waxtaan ci ñu ne dañ ciy dem ma ne leen yeah let's go nañ dem di jël ko après ñu focus ci suñu projet incha allah rabi jàll si leneen quoi noonu la fa demee. bi nga jëlee flow up euh, génnee nga benn projet. Hero euh, mais après projet bi. projet bu naaj ah. sax sénégalais yu bëri sax déglu woon ko mm-hmm. gars naan problème mu avocat dafa am problème mu def communication projet am ñi naan avocat dafa gedd ñi naan avocat lii lan la lu xewoon. yeah mais ku la ah. sant yàlla juste lépp li nga xamante ni bii tamit nit ki mu ngi koy job mu def ci énergie def ci lépp lu mu laaj mm-hmm. mu ngi xaar affaire bi. am lu suuf njortam mais xëy na noonu noonu la waroon a demee mu demee noonu léegi nag loolu expérience la jàll def nañ ko am na ci lum ñu acquérir am na lu luñ ci dund am na loo nga xamante ne bii dund nañ ko comme comme expérience léegi daf ñu jàngal pour beneen yoon wala yeneen yoon lépp lu ñuy def ñu xam naka lañ koy defee ak naka lañ koy planifier this is what it euh, ba léegi bi nga génnee si projet avocat tey dañ lay gis. suba du la xam naa question bi dina la reetaan loo lan la luy sa problème avec lan la. yee man moom man job gëm ko te le fet que may jékki-jékki rek daw raar nii nii nii nii nii nii c'est parce que dafa am leneen lu ëpp importance wala lu ëpp lu ëpp lu ëpp doole li nga xamante ne bii ci loolu laa nekkoon quoi léegi ma dem lijjanti ju loolu ba képp ko. pour boole kook li ma yor après pour xoolaat sama sama yoon xoolaat sama vision xoolaat li may def naka laa koy awalee quoi. waaw mhm. jamono bi ci loolu nga nekk kon su ma su ma déggee sa kàddu mooy am na looy waajal projet. projet la wala maa ngi waajal affaire yu <laughs> abiya manga fogalaa nge <laughs> xaar leen ma la rek laa leen di wax xaar leen ñu xaar incha allah damay gis tout le temps fo de baab fo de baab lan la wait for the baap waaw euh, mooy ci liñ nekk di ko liggéey nii yee mu laaj affaire yu bëree bëri bëri bëri bëri nag waaw mais alhamdulilah ñoo ngi ci kawam te ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi bu baax ñoo ngi koy xendal nank nank pour pour jot ci suñu càkkutéef quoi li ñu bëgg ak li ñu bëggal Sénégal ak li ñu bëggal Afrique mm-hmm. incha allah rabi nañ ñëpp xaar avocat incha allah rabi am na am na affaire yi nga xamante ne bii dina ñëw nii nii jamono jii rek. Mm-hmm. incha allah gars yi dinañ xam lan moo waraloon avocat daw laaxu ji quoi dem nekk ci job bi bu baax quoi. mais avocat ak hip bi tol jamono bi booy dañoo productif tout le temps ñi nga génnee gaa ngi leen di xel. Mm. yow bi nga génnee sa projet ba léegi ñu la chaque jour yaa ngi naan. ñi ngi ñi nga xaar problème. si problème la boobu ba léegi. wallaahi lazim loolu du problème man man man concurrence wu ma euh, ak artiste <laughs> artiste yi nekk concurrence wu ma ak Sénégal quoi. fii aw fi concurrent non non lu tax nga wax loolu parce que ñoom dañoo am seen job di ko job mhm. man ma am sama job di ko job vision yi bokkul philosophie yi bokkul liggéey bi bokkul niñ koy defee sax amul dara lu ci doon benn. lan mooy lan mooy différence bi. waaw avocat yow waaw ne avocat fu fël nga ne kii <laughs> yow avocat bu fu fël nga ne avocat mais booy yu bees yi nii <laughs> loolu de. booy yu si am na ci ay. ñu business de. yeah what's up mais ci businessul sa sa kii ñoo ngi ñoo tamit. non fii ku fi businessul xoola après yow yaay wér ci sa ruko. ku fi businessul yow yaay wér ci sa ruko ndaxte doo fi bàyyi lu bari pour nekk ci benn mbir après ngay waye di ci loolu heure boo ci waye de yow sa jëmu bopp sax yow di nga mere sa bopp mais say mbokk ñoo lay njëkk a mere quoi te yàlla nañu yàlla musal ci loolu na ñëpp fii ku ci nekk na nga tànn sa yoon nga business li nga war a business mais fexeel nag ba bul nekk carte d'identité kenn wala nga nekk photocopie kenn do your own things be your own shelf this is what it is amul leneen mille 2020 bi jeex na gisuñu si avocat def yenn affaire lu dul benn son bu naas bu mu ci génnoon muy jayaxu ak saay fa bi li jotoon teg Eh, budul woon ak corona bi mm-hmm. amal na ma àq budul ak mm-hmm. corona bi maa ngi biti eh, si di rendi kuy. maa ngi biti eh, wër woon ko corona bi instant bi man. da nga amoon ay compte ay link foofu wala. yeah mm, loolu yàgg na du léegi <laughs> loolu sin sa waayal bro loolu lu yàgg la. Mm-hmm. mais nag sant yàlla alhamdulilah yàlla moo xool lu ko neex ak lu mu soob ci ay jaamam mu defee kon noonu. mais man moom man moom maay man avocat man concurrence yow ma ak kenn ta MC yu nekk gars 500 ñoo la ko gën a xam ñoom ñoo la ko gën a xam xam na ni man ak ñoom. gëm yàlla ak yàlla. waaw ah. loolu bëgg a wax wala. yaa ko wax de. ah booy ku ci mel ni Dip Doundou Guiss mi ngi fi Dip Doundou gis mi ngi fi Ngaaka Blindé mi ngi fi xam nga yeneen booy ñi ngi def lu nice gaa leen di bàyyi xel. di fu mu yegg ak fi ngaa ko yegg. Mm. yow nga taxaw ne concurrence ak ñoom tamit abok. mais ñoom ñoo naxante tamit ñoom mais ñoom ñoo la gën a xam ne concurrence ak ñoom. su doon ba loolu loolu ba tey du lu nu gis ah gisuñu ko ah. li ngay wax ni ñun gisuñu ko ah ñeelan xam xam nga lu tax xam nga lu tax gisagu leen ko. Mhm. que. bu dee projet génnee nga ko. waaw effet bu mu waroon def defu ko. booy ñu ngi génnee projet muy def effet. xanaa da ngay nelaw. nan laa nelawee yow man sama projet bi muy génn fii Galsen yow bi muy yow xedo bi bi mu génnee fii Galsen yow yow xanaa xanaa nekkoo woon ci game bi. non abok xam nga tey benn booy bu jóge fee boo ko ndee ni ko avocat ban projet génnee xamu ko. waaw dëgg la loolu loolu loolu. loolu te tey projet ñoom Diba Ngaaka mun nañ la wax lépp. waaw loolu loolu déggoo li ma la wax mm-hmm. xam nga li ma la wax sànq dafa leer nee naa la. nit nit dina joob benn mbir yéena ko àdduna mais li mu ci doon séntu amu ci loolu mais loolu daf ko servir de daf ko servir d'expérience quoi pour buy jaaraat wala buy defaat leneen ñu xam bu baax mais teewul ni loolu mais raar boobu yooyu yëpp raar naa ko mais bi may bi may bi bi jayox bi ñu koy def vibe ñaata ñaata ñaata ñaata seconde la trent 38 secondes mu wër àdduna ñëpp ñëpp ñëpp di ko béggee ñëpp di ko challenge ñëpp ñëpp di xaar son bi. mais say titre sound tamit nañ ci ñëw quoi ay jayaxu xama ak ay piscine paccax yooyu doon te génnagul ak yeneen ay yére yooyu dal la. mooy parce que mooy lu ma la doon wax léegi man dama am sama propre univers. ok waaw sa univers moom sama sama monde la sama monde boo xamante ne bii. samay turu sound mais sa jabu jab bi nga yor nii nii. Mhm. doonu ci may benn EP wala benn mix. mais it's already done loolu pare na bu yàgg. <laughs> loolu pare na bu ñuy xaar pour mu génn kon bu dee pare na. incha allah rabi waaw mooy li ma la wax léegi nii rek man fi mu nekk nii samay samay samay samay samay. nu ni nga ku nekk xam nga ni nga tojee sa bopp jinax man sama bopp jinax fii nga nu may jayaxu ba gars yi toog di xaar. Ah. 39 38 secondes yooyu noonu la ñu gis ba tey gisaatul la ne. waaw mujjul génn amul vidéo lan la heure bi gaa jàppoon nañ dina am vidéo. waaw parce que parce que man liggéeyu ma liggéey bu yomb bro. kon dama soxla temps maximal bi nga xamante ne bii mooy réaliser loolu. swear ak gaal. billaay wallaay du loolu du ay affaire de génn titre wala génn clip wala non non man ak li soxla. dafa soxla dal dafa soxla liggéey ko dafa soxla def ci le maximum bi nga xamante ne bii mooy réaliser loolu pour loolu mun a kii man yàkkamtuwuma sama dara parce que xam naa xam naa fi may teg ma tànk te bëgg xam naa fi ma jëm incha allah. say texte tamit gars yi des fois duñ la ci critiquer des fois sa mbind. waaye man non man ragaluma lool de. xam nga comme ay ku taatu mbaaca tax ngay réebe dóor mbalul ci sa loxo di joor rangu ci ba ci waaja dóoru nga soogay sëgg si mbappatu <clears throat> li li joor genre wax yooyu noonu. yeah mais loolu loolu ñun ci game lañ nekk bro ci game lañ nekk ku ci nekk da nga am sa particularité da nga am ni ngay bindee da nga am ni ngay joobee. am na ñi nga xamante ne bii. dañoo xale yi dina déglu tamit. di bëgg avocat. man man man man. man waaye sa bind dafa salte de Fall. waaw je fais du sale moi. <laughs> man man du sal pour man tax euh, beneen beneen monde bi nga nekk. mais moo ñu dañuy sensibiliser ak yooyu noonu. sensibiliser waaw teewul ni maay sensibiliser <laughs> mais fii gars yi dañuy. géem la daa salte de. <laughs> la. lu mu xat-xat dugal nga ko lu mu xat-xat dugal nga ko si Saipha Galsen Hip Hop Awards 2020 ñu waatal ma si ñu waatal ma si couple bi ñu ñu waxtaan si couple bi. ok waaye yow yaa yow yow yow. ñu waatal si couple bi bayaat ma bayaat ma si couple bi. lu ma wax de sax doone eh, doone eh, Hip Hop Galsen non non doone avocat ci code pénal mooy wax nga naar ñu naan saw du kaana du kajju may jayaxu ngay bari coow. ci paxu douche bi ngeen nekk di bañ ma saw bring day mbootu douche yi kan moo ci gën a soof hey hey man tabaskeew ma ñii damay doog a takk jabar duma lekk xaru taab billaay wallahi corona bi amel na ma ah ndax bu amul woon maa ngi biiti wër di rendi koy pour nga nekk bandi fa nga jam goy jam ba fëll ko rof baaraam bi ji matt boy foog mu saf saf ba nga dégg woy woy sama ndey bëgg ci tek bi nga dégg toy man akama sadik man dama sadik ni gémmiñ buy mat sadik man akama saay saay ni kilo la yamb ci caaj sa dret bi laay rek ah nan ñëw si jam guy bi eh, foofu pour nga nga jam guy loolu bëgg wax foofu ba tey maa ngi si bind bu salte bi <laughs> mais foofu nag loo fa gis. des fois damay gis critique yi si côté boobu quoi bind bu salte bu avocat yor mais parce que parce que game game noonu la demee jeu la mhm. ku ci nekk da ngay am sa ni ngay ni ngay ni ngay joué mhm. ñii la ñuy joué ñii bandi la ñuy joué ñii ñii ñii ñii pour ñu il faut que ñu sérieux ñi il faut que pour ñu jouer il faut que ñu mbalak il faut que ñu kaf il faut que ñu rey ku ci nekk ak ni ngay jouer ce jeu. Mm-hmm. yow sa bind jamono bii la sax mais mën naa ne jamono bi da gën a focus si loolu. ma gën a waga. ok sa diggante rapportu Thiès yi mi ngi naan. man aw su amul jàpp ak ak rapport yi. Galsen Galsen gi dinaa am ak rapport du Thiès damay laaj rek question. non aw ma ak problème ak hip hop gaasen I ain't got problem nouvelle génération bi noo leen gisee booy. ñu ngi ah? ñu ngi handle ñu ngi handle ñu ngi handle ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi defar mu naaj. sa copain Matadi. <laughs> léegi Matadi Matadi ci Matadi. non Matadi cool la Matadi Matadi bro bu cool la. ak bes. ak bes moo ci waaw naar bi. <laughs> dégg nga naar bi. parce que loolu la ko nit ñi di wooye man non amuñu amuñu amuñu kii ah. maa ngi koy maa ngi leen di follow ñoo ngi def affaire yu nice mm. mais cool ah sant yàlla. ñoom ñaar seen talent yow loo ci wax doy na la doy la artiste nga yaa leen si game bi seen grand frère gi si game bi. yow doo ah, kii di ma dugal nan <laughs> ci game bi <laughs> faal ñoom ñaar ku ci nekk moo ngi ci nduqam de ziare li léegi nan dem si euh, flop All Star bi. Hmm. yow euh, Ngaaka Blindé euh, One Lyrical Taiji Scene. Dina from TC Ndobin xama visa bi gis nañ flop All Star gis ñu si ngaa ko mais période bi mi ngi ci quoi ngeen def benn sound bu nice collectif boobu naka la demee seen biir nu ngeen dundee nice ñodde star beeg xëccoo beeg yooyu amu ci non mais ay ay ay ay ay niggas yoo xamante ne ku ci nekk ñoo gars ño ñoo ñoo bokk benn monde bu ñuy ñuy bu job comme hip hop bii nii xam nga nga dajale leen loolu jafe na mais tamit euh, état d'esprit moom mooy mooy mooy mooy mooy tax yenn différence yi ak yenn affaire yi yëpp du ci feeñ ko mm-hmm. mais Africulture job nañ ci liggéey bu am solo parce que ñoom ñoo initié loolu te waaw nekkoon na affaire bu nice daal nekkoon na affaire bu nice. nekkoon na affaire bu nice kon ne amatul loolu. ah mais gars yi ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy ñoo ciy ñoo ngi ñoo ngi ciy wasu ak ñoo ngi def seen kéem laay kattan xam naa pour àggali ko mais waaw ba nii nii nii amagu amaataguñ ci lu leer ko mais xam naa. waaw allah adoon don't daal. sa relation ak Matador. yeah kooku sama grand la sama mentor la sama wéel da bëgg nag. waaw sama kooku sama sama sama sama du sax monde hip hop wala mais leneen la quoi humainement parlant Matador dafa dafa nekk ku sama diggante ak moom dafa daf daf ci nekk ku serviable quoi koo xamante ne bii jaral naa ko lu nekk daal macha allah. retour yi nga am ci Galsen Hip Hop Cypher bi retour yi yan retour nga si jot nice na nice. yu positive yu positive man yu nice waaw. dégg naa teral nan la ci. waaw mais bu baax a baax a baax parce que. <laughs> dégg naa am na ñu la woo ñi jox la xaalis ñi jox la ay yére ñi jox la léegi lii. Eh, yow mi tamit. waaw yooyu moom dégg naa ko. informé Fall. ah baay ci hip hop bi laa nekk Fall man maa hip hop Galsen. <coughs> waaw sant yàlla sant yàlla parce que xëy na job bi moo nice. Mhm. gars yi gis ci lu su seen njort te loolu loolu moo nekkoon kii bi quoi. mais mais juste man dama dikk nii man bañ na ba bi ñuy prise sang nii sax man defuma fa trois minutes. foofu noonu. ci studio bi bi ñuy prise defuma fa trois minutes kon bu génnee mel ni ñëpp bëgg ko di ko kii kon waaw. daal alhamdulilah yàlla moo yàlla moo ko tasaaree noonu yàlla moo ko defee noonu te yàlla moo. sa link dañ lay gis Alpha lu bëree bëri bëri da ngay joob ak ñoom walla eh, da nga fay fréquenter. waaw damay ak ñoom. man man aw ma fréquentation aw ma time. pour pour ay futilité wala affaire yooyu man su ma su génnee rek dafa am lu tax sinon bu dara taxul damay toog fi man fi ma dëkk ma toog ceene gérer sama bopp mais Elfa yee dama fay dama fay joob damay joob ñoom dégg naa yéen a ngi waaj projet waaw ma far si incha allah rabi ngi ñoo ngi waajal affaire yu bëri na affaire yu nice jamono bii lan lañ mën a xaar euh, début 2021 nee naa leen affaire yu pata affaire yu pata pop gaal seen mais yu ngeen mës gis fenn. sa diggante ak rangu bàyyi nañ ko. sa diggante ak moom. di gis day day si say bagage rek faal. sa dégg naa yéen ñaar waaw ñëwal ñëwal. waaw sant yàlla la mm-hmm. ah, kañ la génn. <laughs> <laughs> rang génn. génn waaw. waaw macha allah kon dinaa ko mhm. kon yéen ñaar. Hmm? ñu ñaar dara. ok léegi avocat émission bi jeex na presque léegi dañuy ñëw si euh, dégg naa Flow All bi concours lan ko naroon def. waaw waaw Flow All Star mais après mu ñu ko def concours nag. yow pare woon nga. lan. yow foo ne. <laughs> pare woon nga pour ñu def concours. barke wallaahi azim loolu laa gënoon pare sak que liñ ko def nii. Hmm. loolu laa gënoon pare que li mu nekk nii nii nii nii nii. lu tax nekkul concours. non mais xëy na gars yi ñoo bëggul mu nekk concours mais man da pare woon na man pare woon naa de pare woon na bu yàgg du woon sax boobu pare woon naa bu yàgg daaw. pour ñu def ko concours yéen ñu jël flow bi yëpp. billaay wallaay sax xool da doon nice. doo mm-hmm. doon nice da gis kon bu boobaa da ngay gis da ngay gis leneen. parce que Ngaaka Blinde One Lyrical avocat Dina. tay ji Ndobin visa oh my god loolu day nekk affaire bu wonderful mais xaw ma nag lan moo tax après mu jël nekk loolu ah. mais waroon na ko nekk. waroon na ko nekk waaw. waaw weesoogul xëy na Omar mi ngi lay dégg dina ko nekk. émission bi jeex na. Thiès foofu lépp naa sa gaay foofu alhamdulilah maa ngi leen di bëggee di bëggee waa Thiès ñëpp cat ba cat nag waaw bëggee waa Thiès cat ba. tamit dañ lay bëggee. waaw maa ngi bëggee waa PA tamit fa laa dëkk ak sama dëkkandoo ñëpp maa leen bëggee cat ba cat maa ngi bëggee Popenguine sama jabar fa la dëkk. maa ngi koy bëggee di ko wax baby I love you and I damn love you I stay love you forever baby yeah ñu ngi koy bégg bu baax a baax du ma tudd tur bi madame bi mais ñu ngi koy bu baax a baax ma love ma wife moom xam na boppam ñu ngi koy bégg bu wér a wér yaa aboog ñu ngi lay bégg bu baax a baax di di la jox rendez-vous 2021 ñu ngi xaar affaire yi incha allah rabi incha allah rabi waaw maa ngi maa ngi leen di jox rendez-vous di leen wax ngeen xaar waa Sénégal cat ba cat nag incha allah rabi maa ngi koy wax waa àdduna bi yëpp nag tiktokeur yi ñëpp maa leen di maa ngi leen koy wax ñu wéet incha allah affaire yi pare na te incha allah dina yàlla baax na daal. jaajëf sama gars yi avocat lan fi dalaloon euh, from Thiès yaatal nan lu bëree bëri euh, mi ngi ci projet bi ngi waajal ay affaire yu dóob comme ni mu ko waxee ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di jox gaay rendez-vous bu beneen yoon tey nag Alpha Musique lan defee émission bi Alpha Musique Record di bëggee Fat di bëggee Mr Atou ñu ngi leen béggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous beneen yoon Djily Der la woon booy Grand Yoff respect si ñëpp Equivox TV moo raw ca kaw ca kanam jaajëf